assemblée nationale fan yëpp ñu ngi wax nag ci indemnité yi nga xamante ni euh, bëri na ba jéggi dayoo moo tax sax ñu ne dañu war a wàññi euh, groupe parlementaire yi ndax président groupe parlementaire yi la ñuy am ci privilège si boppam moo daal di nag euh, bëri tractation yi ñu ngi koy wéy ca Yewwi Wallu ci installation député yu quatorzième législature le douze septembre bi lañ ko daal di nam amal membre yu intercoalition bu opposition bi bëgg accordé seen nag doole euh, ci nag sujet bi bile notamment ci candidat euh, bi nga xam moom la ñuy présenté pour poste de président de l' assemblée nationale ak nombre de euh, groupes parlementaires yi nga xam ne ñooy défendre seeni i couleur bu fekkee pour perchoir bi amul benn décision boo xamante ni nag officialisé nañu ko Yewwi ak Wallu décidé nañu déjà Ah, d'après médias yu bëri créer trois groupes parlementaires yeneen opposants ku ci mel ni Thierno Bocoum ak ay membres yu société civile bi ñoom ñu ngi daal di naqarlu boobu le di souligner itam ne dafay contribuer ci nag gën a daal di nag euh, diisal facture euh, ba nga xamante ni nag contribuable sénégalais bi moo ko war a supporter euh, pour fonctionnement assemblée nationale muy ab groupe boo xam ne dafay comporter benn président vice président et que nag du ñu doon ay députés comme les autres du point de vue des avantages ndax seen fonction gi ñu daal di am président groupe parlementaire daanaka salaire am deux fois la salaire député million trois cent lay laal weer wu doon weer wu jot muy bénéficier ci ñaari millions supplémentaires euh, pour fonctionnement wam source a préciser que nag euh, argent liquide lay doon boo xam ne dañ ko koy daal di nag jox euh, directement en plus mu am ñaari oto 4 x cent mille litres carburant cent cinquante mille francs CFA pour téléphone ak benn assistant boo xam ne daf koy suppléer un vice-président bu groupe bi di gagné lu toll ci un million Euh, six cent mille francs CFA par mois mais en dehors ci ñaari millions en liquidité yi muy recevoir président bi euh, daanaka dina bénéficier euh, ci lépp li avantage boo xamante ni kookee da koy daal di nag am bu fekkee ñeen ñi nee nañu nag daw ci avantage matériel yooyu moo tax expliquer choix bu intercoalition Yewwi Wallu am na ñi ca des ñoo xamante ni nag jàpp nañu ne rek créer groupe parlementaire yu bëri moom moo leen di daal di euh, nag euh, dem euh, daal di nag tax sax ñu mën a daal di am si yooyu les avantages buuxante bi nag fu mu toll nii dafa imminente ndax ku si nekk yaa ngi bëgg nag daal di wane sa bopp ci li nga xamante ni moom mooy ëpp ak ñi naan pépp kale reefaan pépp dama koy dagg foofu ak DKR 221 ku bëgg am lu leer ak yu bees tàkk aboneel ci DKR